dañu wax ne ñun ñu ngi ci ginnaaw suñu ay mbokk yooyu nga xame ni dañ leen téye ci lu ñu deful dara ndaxte fi ñu toll ci enquête bi gis nañ ni li ñu leen di jiiñ defuñu ko naam bakkan rot na te mooy lu ñuy naqarlu fu toll lu ñuy jooy fu ñu toll lu ñuy ñaan yàlla musal nu ci fu mu toll waaye nag ah duñu dellu ginnaaw ba sunuy mbokk yi nga xame ni ñu ngi ci loxo yoon dindi tuuma bi leen tegal ba tax na danoo wax ni ci alxamis bi danañu def maternité sans sage-femme maanaam maternité yëpp sage-femme yi dañuy banque seen loxo ndax nag comme danu ne ay raykatu nit lañu te joxuñu nu ay jumtukaay yu ñu liggéeyee te tey bu méttee kenn du gis suñu ginnaaw ah ñu ni nanu toog ba ñu mën noo jàppale ñu mën a xam nan la ñuy mën a lijjantee ndax faat bakkan wala def luy faat ay ay bakkanu bébé taxul sage yi jóg ñaareel ba ñu ni bu àllarba bii di ñëw di 27 avril wax nañu sage-femme yëpp ñëpp nañu dem Louga ñu dem teewe ci procès bi dem jàppale suñuy naataangoo yi nekk foofu ñu bëgg wax tamit ni askan wi gis nañu li commencé am Louga gis nañu ambulance yi ni ñuy demee Ndar du am place ñuy dem ci Tiwaawan du am place ñu jëm si Dakar ñu bëgg xam ni lépp lu am ci loolu kenn rek moom moo ko waral muy monsieur Abdoulaye Diouf saa ministre de la santé et de l'action sociale moom mi nga xam ni dafa toog mu ni moom moom mooy yoon mu dem ci presse bi fekk ay nit yu liggéey xam ne jafe-jafe ya ñuy nekk moom mu ni moom mooy tribunal bi nga xam ni moom mooy tuumaal ay sage-femme teg leen ci ci diggu ëtt bi ni leen man maa njaboote sama njaboot yi waaye sama njaboot yi danoo def lu nga xamee ni man sama bopp xarab naa leen lu waay mën a def si ñoom ba tax na sage-femme yaa ngi nekk ci biir àll bi ñoom ñëpp commencé am ay ay problème de sécurité